إني أخاطب النصارى طرا في أرضهم لمالكي مضطرا إني أخاطب النصارى طرا في أرضهم لمالكي مضطرا دار العليم الخبير دام بوكو تي ورب تي ورب الشيخ الخديمي موي دك بوب بو خامي مو لامبو نياري تورو يالا سونو بوروم العليم الخبير بوكو نتي تي كيمتان يو بي ام am na néeg bopp bu ñu doon barab mori foofu yi ci barab boobu yi te loolu mooy sababu màggalu ndaam Daarul Alimil Xabiir bu ñu doon wax itam am na jàkka jot Seexul Xadim mas na palam jaareem ñoo bokk barab la boobu itam. فن من أتاك بارام نفي لنجبرو شيخ الخديم ويني أب وغاني أدينا مانغفا كذلك يتم فن من أتاك لخو لانتين في لنجدن تلي أبو تنجبرو شيخ الخديم لتطلو كو أكجروم تي أيلياري شيخ الخديم يوما جميع العالمين جمعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون راحلا أو قاطنا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 doon yoo xamante ni sëriñ Touba moo daa digle ñu andi fi ak njabootam ak yeneen njabooti taalibe yi it nag wax nañ ne fii ñu ne yaa ngi jàkkaarloo ak euh, yi fukki doomi Serigne Touba fukki leer yi Serigne Touba ak juróom ñu ngi fi kaca gënoon a mag Serigne Abdul Muhayminu moo ci gënoon a mag jàpp naa ne mook Cheikh Mourtala defe naa ñoo bokk way juru jigéen muy ay góor ak muy ay jigéen li ma la wax ne njabootu Sëriñ Tuubaa dañ fee dañoo newoon ci kër Sëriñ Daam Abdourahmane Lo xëy na loolu sabab bi bokk na ci am na ñoo xam ne dañ fee nekkoon suñu ne nelaw fi ñu andi leen fi am na ñoo xam ni feneen lañ newoon Sëriñ Tuubaa dig ñu jël leen andi leen fi ndax Sëriñ Tuubaa moo wax nañ ne moo ko daa moo ko digli woon moo daa wax kuy ndaw na ma xaar daaru alimul xabiir ndax ñu daan def uh, ku ndaw rek boo fu mu nelawee rek ñu andi la fii da cee gën a ràññeeku fukki leeri Serigne Touba ak juróom yi rek waaye ci magi taalibe yi bëri na ñoo xam ni seenu njaboot ñu ngi fii ci ndigalal Serigne Touba uh, ñoo xam ne dañoo nelaw Serigne Touba nañ nañ leen fa yóbbu wala ñu nelaw ñu déggoon ne Serigne Touba dégle na ko ñu andi leen fi. mën nañ ko xool que ca ni ma ko waxee léegi que ca jiitu Serigne Abdoul Mouhayminu Serigne Cheikh cheikh Abdul Baaxi cheikh Abdul Khoudous cheikh Mouhamadul Mukhtar cheikh Mouhamadou Abdullah cheikh Abdullah cheikh Mouhamadul Mukhtar cheikh Mouhamadul Kabir cheikh Abou Bikrin ñooñu ñooy góor ñi fukki jigéen ñi bokk na ci soxna Roqiyatu soxna Taahiratu soxna Aminatu soxna Maskuuratu ñii ñëpp njabootu Serigne Touba la ñoo xam ne ñu ngi ci barab yii kon barab yi barab yu am taarix la yu am barke la. yu mat a barkeeloo la it danañ wax ne ndaam doomi sëriñ tuubaa yi li fi tëdd tëddut feneen. damay juum sax xuru Mbàkke xuru Mbàkke la moo am xilaaf ñu ne foofu it la fa nekk bëri na waaye daal wax li gën lëng daal mooy li fukki doomi juróom nekkut ndaam loolu li gën a lëng waaw. ñi daal di loxandu ba tey ànd ak Serigne Fadilou Lo mom sey Wasini Lo moom sëñ Abdu Rahmaan Lo ñew ci Dakar gi nga xamé né fi la njabot gi doon jangé ci mbiru kër gi mu doon kër go xamante ni kër Serigne Touba la bok ci daaru yi nga xamante ni Serigne Touba moko ko fi fii ñu naan ko daaru Halimul khabir ni mu sancee dëkk tuddé won ko daaru salam daaru qudus daaru rahman bi mu tollé fi yit noonu la sance won dëkk bi tuddé ko daarul Halimul khabir moom nag dafa am xaasug boppam ndax dëkk bi am na ñaari turi yàlla te loolu nag xaas la muy daarul xaliimil xabiir xëy na lim sëriñ Touba ni mu ko fonke woon ak lim ko defoon ab pekk li ñuy wax pekk mooy ab dencukaay li ci ëppoon solo it mooy alxuraan ji moo tax xay na mu jagleel ko loolu. dafa tolloog fii ñu taxaw muy Dakar gii nag ñuy wax dëkk bi li ci ëpp solo wala li ko tax ñu sos ko muy daarul xaliim kërug aja xamle ji fii la sëriñ Ndaam Abdourahmane doon ko def loo defee Ndakaar gii wax nañ ne njoowaan yii ci suufa ci suufam ñaar ñaari bant yii wax nañu moo doonoon njoowaan gi Ndakaar gi moo doonoon ker gu mag gee mag fi la daa jàngale alxuraan wax nañ it bëri na ci waa kër sëriñ Touba yi buñ ne waa kër sëriñ Touba yi nag weesu na ay doomam ay rakkam ay jarbaatam ak ay taalibeem wax nañ ne fii lañu ñu tàmbalee woon doon jàng alxuraan bokk na ci sëriñ sàmm Mbacke sëriñ Omar Mbacke Gelwangal moom sëriñ Mbacke Kajoor bokk ak sëñ Mamour Anta Salib way jur fii bokk nañ ci ñooñu bokk nañ ci ñi nga xëy ni Serigne Touba wax nañ ne ñoom la njëkk a jox suñu daaw dara mu leen jàngal fii la leen doon jàngale. ginnaaw bi la fa door a andi Serigne Fallou ak Serigne Mourou Moustapha ak ba sa ña sa topp ba sa topp bu dee taarixu fii daal fii moom moo doonoon daara ji daara ji it Serigne Touba moo ko sos moo ko sanc dëkk bi bi mu wàccee Serigne Dame Abdourahmane ko fi ne ko na nga mottali sab liggéey fii muy jàngale alxuraan. ci penku taxaar li ëpp ci njabootu Cheikhul Khadim gi wala lenn ci njabootu Cheikhul Khadim gi foofu lañ gënee àddi. ndax wax nañ ne néeg bi néegu muccukaay lañ ko tuddee woon ndax li ma la wax ne léegi ci wax na la sëriñ tuubaa ni nga xamante ni doyloo woon na sëriñ Ndaam ci ab yaram akub yorom fii waa Barsàq ñi sëriñ Touba da leen fee féetale woon wax nañ ne ñu baree bëree bëri fi la leen bàyyi woon da ci bokkoon na ci yaay sëriñ Abdoul Khadir Mbacke soxna Aminta Bousso. ba néeg bii ñu ne tey sëriñ Abdul Xaadir fii la ganee àdduna moom lañ doon màggal barki démb boo njaay ñu ngi koy siyaar di siyaar njabootam fii la ganee àdduna li fi ganee àdduna wax nañ ne lu mu néew ne mën na ñaar fukki li leeri Serigne Touba wala lu ko jege yoo xam ganee nañ àdduna fii sëriñ Ndaam nee nañ da ko fay bàyyi woon tudd ko néegu muccukaay ku toll ci mucc ñu andi fi ci waa kër Serigne Touba nag lan wax. kon lolu tax ma ne néeg bi neegu tarikh la néeg bi ngeen gis moy néeg serigne dam Abdourahman loolu bi mu daan naafila kaamil bi ñaari rakawa ci ndigalul Cheikhul khadim khadimur Rasul muxtaarikal jaarayni yaa rabbi salli wa salliman fi sarmadin abadan ala man jaada bil أعلى البرايا خيرها دون امتراء من مدحه يكفيني الشرين لي سبب نيت بي نيو تاي ا آه، داتي ام تاريخ بو ريري تا واتي غوغي خاينا نيت لي نكو نيت لي تكو واي آه، يالا سونو بورا مو وخون يونتي صلى الله عليه وسلم فسكري نفاتي سكرا كون خاينا فاتلي مو مونتا نياك néeg bi dafa tombeek bi nga xamante ni Serigne Touba woo na magi taaliba yi mu njëkkoon wàcce bokkoon ci Serigne Ndaam Abdourahmane Lo mu nekkoon ñeent sëriñ ndam Abdourahmane Lo nekkoon ñetteel ba wax nañ ne eh, mi ngi tombeek bi nga xamante ni sëriñ Baara Mbacke gane na naa du sole 1891 bi Serigne Baara Mbacke ganee àdduna ci la loolu xew muy dafa ne leen yéen de gan gi ñëw fa andil na leen ab sërica sërica bi mooy yàlla gërëm na leen yonent bi gërëm na leen man mii doon liggéeyloo gërëm naa leen daal ci teg ne kenn ku ne na nga wax loo bëgg ma defal la ko ña ko jiitu muy sëriñ Ibra Sarr Njaañ wax nañ ne moo ca magoon moo jiitu woon ci suñ bayit booba mu ne ko waxal loo bëgg ma defal la ko mu wax ko la lam koy wax du jar uh, net li uh, mu ñëw sëriñ Massamba Diop Sam mu ne ko waxal loo bëgg ma defal la ko moom it mu wax ko li mu bëgg bi mu àggee sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo bi mu ne ko waxal loo bëgg ma defal la ko wax nañ ne ko def na ko day man day mbàkke uh, ku santul mbàkke santul busu bu defee lu naqari yàlla ba yàlla war koo mbugal na ma yàlla jox kàttanu malayka te jéggal taalib bi Serigne Touba daal di koy wax ne ko yaa ci tegub sart ndax boo ne woon ñu jéggal ko ñu jéggal ko waaye yaa ci tegub sart sart boobu nag li koy teggi mooy fii ba ba ngay faatu waxtu wu ne deel naafila alxuraan ñaari rakka rakka ñaari rakka yooyu ci néeg bii ñu ne ak barab bii ngay gis ci la ko doon defe loolu mooy eh, sababu ñëw kon néeg bi néegu barkeelu ndax wax nañu Serigne Ndaam naafila na fi alxuraan mu néew néew lu ëpp juróom fukki at juróom fukki at daal ndax ba ko ko bi waxee mosu koo jëlal kon fii néegu barkeelu la néeg bi it day néegu am taarix boo xamante ni xay na li nga xamante ni moom lañu jublu nii muy màggalu ndaam bu soree di nga xam ne néeg lu am solo la ndax dañuy wax ne néeg bi nga xamante ni fi lañ taxaw sëriñ Touba moo fi fanaan ñaari guddi gisi njëkk mooy fukki fan juróom ci aw tamxarit niñ ko waxe googu lu wér la ak fukki fan ak juróom benn fukki fan ak juróom yooyu nga xamante ni moom la fi njëkk a fanaan ci ndigalal nag boroomam ndax dañuy wax ne booba la jóge ci yéen jolof waroon a dem njaareem waaye war a wàcc kër sëñ Mbàkke Buso kër sëñ Mbàkke Buso booba mi ngi tolloog fii ñuy wax Mbusoobe booba mi ngi tuddoon Alansar ñuy euh, wolof yi naan ko Lasar foofu la amoon yéene fanaan yi waaye wax nañu bi mu rombee fu ñuy wax mbal jëm am na fu ñuy teen bu ñuy wax xama madrun nee na la ko sidna jibril ñëwal ne ko sa borom nee na bul wàcc fu dul kër abdourahman loo mu wax sëriñ bu buso ne ko bu buso ndax dégg sa boroom wax mu ne ko ah mbàkke de ñun lottu nañ ci dégg wax yàlla nee na yonente bi nee na mu ne ko sama borom day nee na moo wàcc fu dul kër abdourahman daal di digle ne kon bagage yi nañ ko yóbbu kër Abdourahman wax nañ ne guddi googee fi la fanaan guddi ga ca topp la fanaan door fee jógee dem njaareem wax nañ ne diggante Touba ak eh, njaareem ak fii fii la fi mujj fanaan ndax wax nañ ne yendu na ci diggante bi waaye dafaa yendu dem fanaani njaareem ba ni muy ñëwaatee 1927 Touba kon néeg bi néeg boo am taarix la guddi googu nag la ñuy màggal ndax bu njëkk daan nañ màggal màggalu ndaam waaye fukki fan ñaar fukki fan ak juróom-ñett si ndaam lañ ko daan ginnaaw bi nga xamante nii nag sëriñ Saaliwu moo fi nekk te am lu xewoon ba nga xamante ni mu ne su ko woon a ca booba ba ñu demee ba sëriñ Saaliwu laajte lu ngeen daan màggal ñu wax ko ko sëriñ Saaliwu dafa ne ñun di bis yooyu ndax ci am lu mu wax daal bi loolu amee sëriñ Wasiynu moo fi ne woon xalifa sëriñ Daam Abdourahmane daan ne ko man dey Mbàkke am na bis bu ma doon taarixlu bis boo xamante ni doon naa ko taarixlu ba nga xamante ni xamoon naa ko waaye nag dama amagutoon ndigalal jëfe ci sëriñ Saaliw ne ko Mbàkke boobu eh, eh, loo boobu bis ban la mu ne ko bis bi sëñ Tuubaa jógee woon ci yéen Jolof fanaan ci woon ndaam mu ne ko ah boobu day bis bi day mbàkk eh, loolu bu ñu ko xamee moom bisub ñëpp la ndax bis boobu day ndigalal yàlla la woon ndax sëñ Tuubaa day fa fa soo wutoon a fanaan foofa kër sëñ Mbàkke bu soo la fanaan waroon a fanaan waaye nag ndigalal yàlla moo ko ne na nga fanaani ci kër Abdourahmane bis bobu de bu ngeen ko jappé na ngeen xamné yéen ak julit yi ak murid yi ñépp ko bokk inni an-nasara turra fi ardihim limaliki muttarra inni an-nasara turra fi ardihim limaliki muttarra amna buntu baab jumaa ju fi tàmbali wax nañu serigne touba ci boppam moko ko te wax nañ ne daana fi nodd moo ko doon ci tànkam da wax nañ ne daana fi nodd te néewaana niñ ko waxee barab yoo xam ne Serigne Touba def na nuunu def na fa nuunu rëdd jumaa ja daa fa jullit di fa noddal boppam fii bokk na ci barab yi mu ko def xam naa njaareem daal xam naa ko ci waaye fii ak njaareem laa ko xam xaw ma am na feneen mbir waaye fii ak njaareem moo tax ba Serigne Moustapha Lo mi ko tàmbali bi mu koy def dafa ne woon du wutale pala bi ak pala bi jumaa njaareem ji nga ñoo bokk taarix moo tax ñu niroo mel nii ab liggéey la boo xamante ni ñu ngi ko tàmbali te eggagut kon fu ñuy liggéeyale sëriñ bi la toolub yàlla la kon mi ngi nii euh, sëriñ bi fi ne mi ngi ci lu mu am lu mu am def si mook taalibe yi gannaaw bi la taarix bu sell bu yaatu jàmbaar wuy ji sangam ba Cheikhul Xadim sëriñ Daam Abdourahmane Lo atum 1943 néeg bi it néegu taarix la ndax képp kuy kilifa li ñuy wax sëb néeg bi nga xamante ni fi nga génn àdduna néegu barkeelu na néegu siyaar néeg bi ne wax nañu fi la sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo génne àdduna ci xaama bassasin dëppoog mille mille trois cent soixante deux ci yeey wax nañ ne fii la génne àdduna 1900 dëppoog 1943 fii la euh, génne àdduna كنا نيك بي نيك باركي عبدك فليظن بك ما شاء فبذلك ذكرتك بهذه الابيات متبركا بقولك فاذكروني اذكركم راجيا منك ان تذكرني بها عندك وعند عبادك الصالحين ذكرا اسعد به سعاده سعادة لا شقاوة بعدها أبدا آمين يا رب العالمين Veuillez abonner Kidara Division, la chaîne de nos valeurs, la meilleure chaîne en ligne, la chaîne qui nous rassemble.